duñu la laaj lan moo tax nga ñëw mais plutôt dañ lay laaj seen relation naka la demee. waaw euh, comme euh, relation amicale relation de respect pour ki nga xam ne moom la doon mu nekk un artiste te boo nee artiste rek euh, jeexal na wax mu nekk koo xam ne c'est créateur ba pare na bëgg aar. donc moom moo waral suñu teewaay mais li nga xam ne moo ñu gën a yëkkati aussi moom mooy que dañuy honoré xam nga waaw ngóor day yokk ngóora 2023 lañ nekk en 2003 laa commencé woon nekk euh, première animatrice de la euh, deuxième chaine de télévision privée au Sénégal muy la deux s donc ça fait aujourd'hui 20 ans kon xam nga 20 ans du ñaari fan du ñetti fan. voilà donc bu ñuy organiser événement culture Mor Xarma. ah ex pirate de Dieuppeul nga xam ne mi ngi def liggéey bu am solo. moo ñu woo pour honorer ñu loolu suñu présence. loolu moom mooy li nga xam ne euh, moom moo ko waral mu nekk mbégte kese nag. d'accord da leen di sargal ndax li nga def ci euh, milieu bi macha allah ba nga commencé ak léegi dara ñaawul alors lan moo la ci gën a neex ak lan moo la ci loo xam ne itam moo la ci gën a metti waaw li ma ci gën a neex bëri na. Mm-hmm. parce que euh, apporteel na ma lépp. Mm-hmm. andil na ma lu ne parce que nu ne peut échapper à son destin mm-hmm. parce que bi may commencé en 2003 euh, c'était euh, chaîne de télévision culturelle la woon mm-hmm. RTS 2 mm-hmm. donc loolu moom moo waraloon euh, ñuy def euh, émission à vocation culturelle nga xam ne culture rek lañ doon def am amuñu woon droit def info en 2007 bi ma Ablaye Wade recevoir ñoo am autorisation def li nga xam ne moom moo di info euh, sur la deux 2STV euh, donc euh, loolu nekk na lu ma neex mooy que tey jii au moins su ma génnee ci métier bi sax am na loo xam ne bàyyi naa ko fi. Mhm. Euh, parce que boo nekkee ci réew da ngay fexe ba bokk ci wayu réew ma. tey képp koo xam ne rek yaa ngi yore micro di way. Mhm. wala ngay œuvrer ci wàllu culture. Mhm. toog naa ak yow def ak yow émission. donc loolu dafa nekk lu am solo. parce que bi ma daan liggéey nekkuñu woon rek ñoo xam ne dañ daan toog ñu ñuy wane dañ doon nekk euh, de la conception à la diffusion. donc dafa nekk loo xam ne lu am solo la lu ma neex la j'ai réalisé plein de choses lu mu yàgg yàgg mu ngi des ci xelu nit ñi te boo rombee sax ñaar ñaari nit wax la ko mhm. loolu ça fait plaisir loolu nekk na lu ma neex loo xam ne euh, métier boo koy def day am passion te c'est une passion mhm. euh, li ma ci xaw a naqari euh, bëriwul mhm. parce que gis naa ne léegi ñëpp bëgg nañu def li nga xam ne moom moo di métier bi mhm. ñu ngi ciy góorgóorlu ndax métier la boo xam ne kenn moomu ko ku ko bëgg mën nga cee def mais bëgg rek ñu gën ko euh, ñoŋal mhm. gën ko defaraat mhm. du euh, parce que léegi yëf dafa ubbeeku les choses ne son plus figées euh, le monde est devenu un village planétaire ku mu neex nga def télé ci poche dafa xew léegi nag bu ko defee ñu mën a def loo xam ne rek day resté contenu dafa am solo ndax à la fin de la journée sélection naturelle rek mooy am loolu kese kese laa ci bëgg sànni mais terewul ñëpp a ngi góorgóorlu mm-hmm. ndax duma kenn bay jox leçon euh, qui que ce soit mm-hmm. xale yaa ngi góor góorgóorlu et ça me fait plaisir de voir cette nouvelle génération mm-hmm. ñuy émerger di liggéey bëgg affaire u micro loolu ça me va droit au cœur ça veut dire que mujjeewuñu puso bi mu réer ndax xëy na buñ ko yàqoon xëy na du du demee nii mais nañ ko gën a defaraat gën ko mu gën a sélectif ah pour nag euh, koo xam ne bëgg nga ko nga dem jàngi ko. Mhm. nekkul nag ku jàng rek moo war def métier bi. parce que euh, journaliste yi gën a mag ci àdduna bi boo xoolee ay PPDA ak yooyu yëpp. Mhm. defuñu sax école. Mhm. dafay am nit ñi loo xam ne danga koy am muy lu inné ci yow muy talent bu naturel. waaye nag du tere bu fekkee ne bëgg nga métier bi nga gën a performer pour bañ a wax toj toj mhm. dafa am solo ndax day resté d'accord ñu jeexale ak euh, conflit de génération bi nga xam ne wax nga ko sànq c'est très important euh, Idrissa kenn dootu ko présenté ci mim réew à travers ci li muy def mu mën ko lool waaye euh, dañoo seetlu ci jamono ji ñu toll ci wéykat yi nga xam ne dañoo ñëw bees mu am tuuti conflit euh, exemple Pape Diouf Wally Balago Seck Barry Mundi di a bokk de polémiques yoo xam ni animateurs yi présentateurs yi euh, présentatrices ñi nga xam ne dañoo nekk ci wàllu média bi tam war nañ ci mën a wax. waa dañu ciy wax mhm. mais conflit amul su ma di ñi koy alimenter rek moom mooy am mhm. peut-être euh, mais conflit mënul am seen diggante mhm. parce que je ma souviens d'une chose Wally sekk bi may def ak moom une émission qui s'appelle 24 heures ak benn artiste la tànn pour seeti ko muy Pape jouf xëy na génération bi xamuñu ko mais nañ dem xooliwaat archive yi kon foofu problème mënul am seen diggante toute la journée bi ñu yendoo ci 24 heures il n'écoutait que la musique de Pape Diouf donc ñoom ñaar benn lañu boo waxee Wally Seck wax Sidi Diop ku ci nekk li ñu koy waxee rek nit du lekk lu dul wërsëgam jamono bu nekk ak la cay xew mhm. mais kenn ku ci nekk ci ñoom yaa ngi représenter la Sénégal dignement mhm. muy fii muy bitim réew mhm. mais nag affaire ay euh, rivalité yooyu mënut a ñàkk. Mhm. ndax bu ñuy remonté waat lu temps. Mhm. ci histoire culture sénégalaise mhm. boo demee ci ay euh, euh, laay mbub. Badara Mbaye Kaba dañ ko doon comparé. dañu comparé Thione yu Youssou Ndour. yu Youssou Ndour Omar Pène. loolu mënul ñàkk Viviane Titi mënul ñàkk. mais ñoom ñëpp ñu généreux lañ. parce que métier artiste. ku amul générosité de cœur mënuloo ko def mhm. te ñoom ñëpp dañuy gisante dañuy waxtaan benn lañu mhm. te Sénégal ñëpp benn lañu war a doon ci domaine bu ñu mën a nekk mhm. am na nag ñu yàlla di jiital période bu nekk ak la cay xew dañ koy nangu rek te xam ne nit du lekk lu dul wërsëgam mais à la fin de la journée Sénégal artistes yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi xëy na yooyu nag day alimenter showbiz bi rek pour mu gën a neex d'accord merci et bonne fin de soirée merci beaucoup à vous merci yàlla na et bonne continuation yàlla na yàlla euh, barkeel li di liggéey xam ne noble la nit mën na ci dem fu ne am ci lu ne ndax am naa ci lu ne tubaar fakàll macha allah merci merci euh. pour euh, li nga xam ne c'est première je peux dire ñuy sargeel ñi nga xam ne ay icône lañu nekk ci milieu bi euh, def fi lu doy waar lu rafet loo xam ni ñi nga xam ne dañuy ñëw dañoo war a xool ci ñoom pour mën a doxal pour mën a itam war cee mën a jëriñu comme ni ko Kebs waxee sànq lu nekk am na ko ci millier bi li ko ko may nag mooy yaroom teeyam tekkam ki ñu taxawal nag moom di nuyoo salaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu képp ku nga xamante ne bi macha allah euh, yaa ngi ñuy seetaan. Mhm. d' accord alors ñu lay sargal tey te ki lay sargal di Idrissa Diop nekk un icône moom itam kenn dootu ko présenté seen relation naka la demee. Alors, c'est vraiment une relation de mm-hmm. euh, parce que comme vous le savez, je suis euh, à ah. Donc, ça va faire, je pense, 29 ans. Donc, voilà, j'ai vu aussi euh, beaucoup d'artistes euh, défiler devant euh, tonton Idrissa, comme on aime bien l'appeler. Mm -hmm. Il en fait partie, c'est quelqu'un que nous respectons beaucoup, de par son travail, de par son talent, de mhm. par sa musique internationale. Mhm. je pense que pour nous, c'est un honneur, en tout cas aujourd'hui, euh, d'être euh, célébré, tout mhm. simplement, qu'on nous rende hommage. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'attend jamais, mais euh, ça fait quand même plaisir. Et euh, justement, pour remercier mort euh, des pirates de Dieuppeul parce que bon, euh, je pense qu'il a fait quand même euh, l'effort euh, de nous contacter pour ce sargal. Et euh, moi, c'est un, un, honneur et j'en profite pour remercier euh, les autorités de la RTS, parce que je pense que, comme je vous l'ai si bien dit, j'ai commencé en 1994 et je suis à la RTS depuis et j'ai été entièrement formée à la RTS. Euh, je remercie euh, le directeur général de la RTS, M. Racine Tala, euh, qui du reste m'a fait confiance mm-hmm. ces derniers temps pour mm -hmm. me nommer à la tête de RTS 2. Mm -hmm remercier M. Pape Madi Diop, qui est directeur des chaînes et antennes régionales, mmh. l'ancienne équipe de RTS2, M. Omar Ba, euh, mais aussi euh, Mme Fatou Djei, mm-hmm. remercier tous mes collègues. Mm-hmm. Mais euh, permettez-moi de remercier aussi les téléspectateurs, euh, vraiment les Sénégalais euh, d'ici et d'ailleurs mhm. euh, qui m'ont adopté depuis le début. Mhm. Je suis arrivée à la RTS euh, dans les médias toute jeune. Mhm. Alors mes enfants maintenant sont grands et le Sénégalais continue à m'adopter. De vous éveiller de m'aimer, de me supporter. Et ça, me fait chaud au cœur. Euh, vraiment, je ne cesserai de remercier ce très beau peuple mm-hmm. euh, qui est à l'écoute euh, de, de, de, ses enfants. Mm-hmm. En tout cas, merci beaucoup mm-hmm. à tous ceux qui m'ont supporté, qui continuent de me supporter parce qu'une carrière de 29 ans, bon c'est pas c'est pas tout le temps quoi. exactement alors nga nekk ci milieu bi nekk en tant que itam présentatrice ñëpp ràññee la alors boo gisee tey jigéen ñi di yàqante der seen bir lan lay def ci yow. Ah ben écoute, ça fait mal, hein, parce que tout simplement, euh, il n'y a pas d'autres nationalités, il y en a. Mhm. On a des étrangers parmi nous, mhm. mais nous restons des Sénégalais. Mhm. Et quand on, on dit qu'on est Sénégalais, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, à Imbokolano. Donc je pense qu'il faut que nous revenions à nos valeurs, parce que nous avons quand même une culture qui fait que Euh, mbokk xarit euh, tout ça dafa nekk lu am importance mhm. donc je pense qu'il est important que ñu revenir ci loolu même lu nar a ñaaw mhm. nañ ko rafetal mhm. parce que àddina comme j'ai l'habitude de yàggul mais euh, da nga fiy def passage waaye dañuy ñaan yàlla parce que moom mooy def aussi ah passage boobu yàlla na nekk passage bu rafet donc dañu koy ñaanal ñëpp di ko di wax suñu rakk yi nga xam ne dañu nekk ci média yi du fo et puis c'est un métier qu'on il faut apprendre da ngay mbappat comme on dit mhm. et puis euh, écouter les aînés mhm. et puis savoir que euh, c'est important euh, ñi nga xam ne dañuy seetaan ñoo ñu gën a intelligent mhm. ñoo ñu gën a rafet. Mhm. Dieu a fait que peut-être ñu nekk au devant de la scène. Mhm. mais nañ ci ànd ak humilité. Mhm. nañ ci ànd ak yar. Euh, nañu euh, sukkandiku ci suñu culture. parce que la culture euh, je veux dire c'est le nerf de la guerre. mooy li nga xamante ne bii c'est c'est extrêmement important. dans la vie de d'un être humain. voilà ñu jeexale ak sëy yi nga xam ne wax naa ko sànq en tant que jigéen boo déggee ñu ne sëy na internet bi ñëpp di ko reprendre yow en tant que journaliste lan lay def ci yow. waaw euh, xam nga léegi lu bëri dafa ne fàng torop mhm. euh, je pense que sutura bi nga xamante ne bi dafa bokk ci euh, suñu ay valeurs mhm. je pense que il faut qu'on revienne à ça il mhm. y a des choses qu'on doit montrer il y a des choses qu'on ne doit pas montrer mais je pense que média yi dañ ci am benn rôle un rôle très important qui voudrait que ñun suñu bopp ñu yaraat suñu bopp pour mun na vraiment transmettre cela à nos enfants transmettre cela à tout ce qui nous regarde parce que tey ku nekk média je veux dire euh, tey doone par exemple benn nit moo may xool donc am nga une certaine influence yal na nu yàlla may parce que mooy maye yal na nu yàlla may ñu ànd ceeg dal ànd ceeg yar ànd ceeg éducation bu bu bu bu normal ba nga xamante ne bi ñi ñuy déglu tranche d'âge yëpp dinañ mën taxaw mm-hmm. parce que bon i est pas bien qu'à la télévision ou alors ci site ou je ne sais quoi mm-hmm. que tey nga ne bon man tranche tranche d'âge bi ñoo may déglo mhm. nañu sóoraale mag ñi. Mhm. sóoraale xale yi. Mhm. sóoraale jigéen ñi. sóoraale góor ñi. sóoraale vraiment àddina yëpp. je pense que loolu c'est c'est important. d'accord merci beaucoup et bonne fin de soirée. merci ça a été un plaisir de vous parler. merci merci beaucoup. merci aussi à la délégation. madame Sadia. Ouais, je l'avais carrément oublié. Merci beaucoup. Ouais.